léegi lam amee léegi matagul fukki junni at te jant bi mën nay wàññi ko wàññi boo xam ne ci téeméeri junni at lay feeñ lañ koy sa ko mën a gis kon boobu foofu jéem ngeen jéem seen réy ñaareel bi bu ngeen ne lépp luy tàkk yël taxi mu jërman maanaam am na koor bu muy consumé mooy li ngeen xam ci suuf si waaye du ca gën régal yi régir suuf si moo régir jant bi moo régir yeneen biddiw yi da ngeen xamul ni ngeen di wax biñu demee ba ci vingtième eh, siècle science moderne lañ soo xam ne jant bi dana fay bind na ñeenti milliards yi ak genn wàll bu fi toogatee ñeenti milliards dana fay bu fayee muy gën a rëy muy weex tal te du am benn lumière ndax hélium lay transformé kon gent bi am na lu koy tëbb am na luy jeexi la lenn ci yi nga xam ne falasifa yi juumoon nañ ci te njiiti lislaam yi wan leen euh, njuumte bi xam ne am na muy yu bari sax li ma misaal jant bi rek ndax weer wi ñu laajoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen di kii wa taala la fan wu gudd lool wa ànd ak wér ak jàmm ak salaam. loolu la yàlla barke. loolu a sutura a teranga jàppale la ci taahir ak ci ba lépp li nga yéenee a islam ak lépp li nga yéenee leeral ci yoonu Sëriñ Tuubaa bi nga eggal ko ni mu a bëggee bi ahsanul xaal ak man na bi il xaatim wa bi hurmat Seexul Xadim jazakallahu xayran jazaak ñu ñaanante bopp bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maaliki yawmi ddiin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin haqqa qadrihi wa miqdaarihi al